indiwaat leen euh, xibaar yi léegi lay doon mu mel ni euh, dënn bi euh, ab defatina jéeya tey jii bu ñaari waxtu jotee ci diwaan bi ñuy wax Jéelaani di nekk nag ci commune bu get Ardo ca Louga mu mel ni nag bilang bi metti na ndax ñeenti nit ñoom ñoo ci faatu ay xale yi ndaw ki ci gën a tuuti juróom-ñaari at képp la nekk la amoon ñu ngi toll kon ci juróom-ñetti nit yoo xamante ni faatu nañ ci ñeent ci ñoom am ci ay gaañu gaañu yu méttee métti ba tey manifestation bi nga xamante ni préfet bu ndakaaru da koo tere woon euh, ci euh, dund gi seeraay bi nga xamante ni am na ba ñoo lànk génn ci ak waa nitu euh, dëgg ñu mu mel ni teg nañ ci lu toll fukki nit ak ci ñoom ñoo xamante ni dañu ñëwoon doon manifester ci place de la nation yóbbu nañ leen kon ci commissariat bu Grand Dakar ci communiqué bi nga xamante ni collectif ñoo lànk ak mouvement nitu dëgg def génnee nañ ko ñu ngi ciy ñaawlu euh, li ñu jàpp seen i membre euh, ñoom nag nee nañu njiitu réew mi kott moom mooy responsable ci lépp loo xamante ni war naa mën a dal ci kaw ñi nga xamante ni ña ca commissariat bu Grand Dakar di fàttali ne euh, manifestation collectif ñoo lank bi ci cherté dund gi préfet bu Ndakaaru da koo tere woon ñaareel bi yoon baa ngi nii mu mel ni kon itam ñi ngi préfet bi lu mu wax ni moom mooy bu leen bàyyee dafay am trouble à l'ordre noonu dem dikk bi dina xaw a tagga euh, témbe euh, waaye ñoom collectif ñoo langue ak nitu dëgg euh, ñoom nag dañu ni loolu teguwul fenn muy waxati ci mbiru suuf soo xamante ni jur na coow fële ca jas ba ñu tegoon ci loxo ñaar fukki nit ak ñett may nañ leen bàyyip euh, nëgandiku dinañ leen atte ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre bi ñu dëgmal euh, li ñu leen di toppee moom mooy trouble à l'ordre public ak itam yàq alalu réew mi wala alalu nguur gi euh, ñuy fàttali ne ñaar fukki nit ak ñett yi nga xamante ni dañ leen teg loxo dañu ne dañoo bëggoon a jël seen suuf foofu ca Issa mu toll ci fanweer ak benn hectare Sénégal defatina jéego ci wàllu xeexum corruption di guerre euh, tey nag am nañu atelier de lancement boo xamante ni ñi ngi ko ñi ngi ko duppee stratégie nationale de lutte contre la corruption euh, tey jii kon lañu ko lancé njiitu réew mi ci boppam moo moo ubbi euh, ndaje mi Macky Sall nag lu mu wax ci objectif bi nga xam ni moom la ci jublu ak impact bi nga xamante ni corruption boobu dina ko indi ci économie nationale dañ ci ànd ak Marcel Farba Maroon ak Diafara Ba ginnaaw ba ñu installé comité de pilotage juróom-ñetti fan ci weeru décembre atum 2017 stratégie nationale bi xeex guerre ci Sénégal ci période 2020 2024 ñu daal di ko lancé tey ci aljuma ji liñ ciy séntu nag doon wàññi lu bëri lii di fraude ak ger fii ci réew mi. xam nga Sénégal dafa bokk ci ay kuréel kuréel bu mel ni convention des nations unies contre la corruption. kuréel bu mel ni convention de l'union africaine contre la corruption bokk ci CEDEAO mu am protocole de lutte contre la corruption bokk UEMOA mu am ay directives yu ñu war a transposer am nag document bi ñu naan PSE yooyu yëpp daf ne foog ñu am stratégie nationale de lutte contre la corruption mooy li ma wax léegi foo xam ne dinañ fa mën tënk yoon bi ñu jaar ba gàttanu wala ñu xeex bu ñu sukkandikoo ci banque mondial société yi ak nit yi at bu ne di leen verser lu toll ci junni ak juróomi téeméeri milliards dollars ci li ñuy wooye pot de vin mu doon équivalent deux pour cent ci produit intérieur brut ci àdduna bi. guerre day indi ay gàllankoor yu bëri ci réew yi moo xam mu jëm ci wàllu progrès wala sax wàllu naataange doon na itam loo xam ne dafay gàllankoor lépp lu jëm ci moral naka noonu itam état de droit ak itam lépp loo xam ne dafa soxal askan bi ñu war koo yor yorin bu mucc ayib ger itam boo koy xool lu jëm ci wàllu ressource daf cay indi ay gàllankoor yu bëri ba nga xam ne sax yu si bëri day naax saay te lu jëm ci wàllu investissement public. publique itam ger dafay décourager bu baax a baax ñi nga xamante ñooy ñoo yor seen i koppar te loole nag dafay am ay rëq-rëq yu muy indi ci exécution yenn projet public yi. lancement stratégie nationale bi xeex ger ci Sénégal ñu ngi ko daal di def ci benn forum bu ñu organiser te jiitu réew mi Macky Sall assisté ci à distance boobu la daje nag ñu ngi wooyee les force vives de la nation ñu nga ca woon lu ci mel ni société civile ak sax yenn kilifa ci diine yi ñooñu le waa xamante ni ci secteur privé bi lañu nekk ku ci nekk daal di def déclaration engagement ginnaaw loolu ñu daal di leen di woo ngir ñu gunge nag ci xeex boobu ñuy xeex ger fii ci Sénégal jàpp leen ne euh, ñi nga xamante ni moom mooy carte grise sous format papier dootul valable li ko dooree ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre bi ñu dëgmal ministre des transports terrestres moom moo jël dogal bi ne lépp luy opération ci plateforme numérisée sécurisée bu bees bi lay jaar union des routiers du Sénégal mi ngi rafetlu dogal bi waaye nag nee na app bi moo xaw a gàtt dañ ciy àndal Alhassane Ba ak Pape Sangoné Mbaye Gora Khouma ak i ñoñam ànd nañu ci dogalu nguur gi numériser opération yu jëm ci carte grise yi waaye nag li ñu jàpp ni mooy ñaari fukki fan ak benn ci weeru septembre gi ñu nekk doon na ab délai bu gàtt. mbir mi dafa am yeneen yu ci am ndax mënuloo bu dee ñun ñi nga xam ne tey jii c'est moo xam transport de marchandise nga moo xam transport de passager nga pour nga am mutu bokk il faut nga am agrément amoon nga agrément këyit la woon. talon la woon mais dañ ne car agrément talon boobu da nga koy changé def ko agrément numérisé te agrément numérisé yow il faut que nga am nationalité il faut nga am casier judiciaire te li ëpp ci ñi nekk Ndakaaru man nañ fi am kër sax mais pour ñu am fi nationalité sax mooy problème parce que li ci ëpp yëpp ci àll bi la ñu lañ dëkk. donc man jàpp naa ne comme accepté nañu rek numérisé dañ ko war a yaatal man d'accord naa ko mais délai bu ñu ko puusoon fii bëgg nañu régulariser lépp man bu ko régee man dinaa ci ànd parce que tamit mënul ñàkk. leneen li nga xamante ni itam sàkku nañ ñu xoolaat ko muy njëkk li jàpp nañ ne cher na lool. bu njëkkoon boo xasee ba am agrément dootuñu la laaj ci nationalité talon bi rek nga indi. bu jeexee ñu yokkal la ko prolongé la ko léegi dañ ne la non il faut que nga fournir ay documents yu bees taq documentation boobu nag mooy mooy problème bi moo waral rek ñu ne non seulement xaalis bi euh, ci état lay dem. même bu béré tamit ci état lay dem mais dañu wax ne cher na délai bi gàtt na. li ko dalee ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre gi ñu nekk opération yu jëm ci carte grise yi sous format papier mooy maanaam mutation duplicata yeesalaat ak li ci plateforme numérisée sécurité bu yees bi nga xamante ni nguur gi taxawal nañ ko foofu lay amee mu mel ni kon carte grise yi nga xam ne kayit la dootul amati. xiifal bi nga xam ne yenn si jàngalekat yi door nañ ko ma ngay amee ci siège yu FRAPP euh, jàngalekat yooyu nag nee nañu euh, duñu dañuy dëddu lekk ak naan ndax nag euh, juróomi téeméeri jàngalekat yoo xam ne jël nañ leen ci programme xëyu ndaw ñi jaarul benn yoon fu mu waroon a jaar ndax nag ñoom dañoo jàpp ne politiciens yi daal dañoo jël mbir mi ku nekk ak sa quota loolu nag duñu ko nangu benn yoon dem nañu ci siège yu FRAPP def reportage Mamadou Fall ak Mohamed Ahmed lañ ciy àndal. xiifal la ñuy def naxar nag doon lu ñëpp bokk fii ci siège FRAPP jàngalekatu passerelle yi ñoom ne mënuñu xam lu tax ñu boddi leen ci recrutement wu junniy enseignant yi état bi lancé woon monte ñoom mboolem critère remplir nañ ko. enseignants passerelles boo ko déggee ce sont des enseignants à part entière voilà donc ce sont des enseignants qui ont été recrutés par les inspecteurs de l'éducation nationale base bi mooy maanaam euh, enseignant bu nekk da war a dem am am d'abord minimum ensuite ñu former la dans les CRFPE donc nga am permission de récupérer les enfants hors circuit. yaakaaroon nañ daal déception daal bu mag lañ ci am. déception euh, a ga dañ njëkk jël d'abord balaa ñu jël kenn parce que dañu liggéeyal état te nit ki boo ko liggéeyee da ngay xaar mu fay la donc dañ ko liggéeyal nañ ñu dañuy xaar ko mu fay ñu. tey jii nag taxaw temm la ñu def ngir dem ba mu sës ci seeni revendication ñu ñu jàpp ñu ne moo di autorité yi dañoo rek jël li nga xam te moo di programme bi daal di ciy casé seen i militants. grève de la faim mënul ñàkk mënul ñàkk su laajee ñu tayle suñu bakken dañuy tayle suñu bakken waaw. man dama ne clientèle politique lañ bëgg a casé loolu nañ ko waxte dee Sénégal lañ nekk dañu waxante dëgg waaw dañu bëggoon rek juste pour may pour may nit ñi liggéey wala wala wuti seen seen clientèle politique yi moo tax gars yi di ko nii loolu kese la du dara instant yii grève de la ñuy def dañuy dem dañuy grève ba xëy dee. ci ñaari téeméer ak fukki jàngalekat nu ñu leen tuddee état bi daal di ciy jël lu dul ñaar fukk ak juróom-ñeent ñu gis ni lim bi néew na lool. lu ëpp téeméer ñu wàcc leen ci biti ba tax na tey jàngalekat yi ne ñoom faw ñu dugal leen sans condition. sous-traitance nu muy lale nu muy lawee ci réew mi daanaka jaaxal na FGTS njiit la Sidya Ndiaye bi muy jàkkaarloog taskatu xibaar yi nee na dina ko yot ki nga xamante ni moom mooy ministre du travail lu mu bëgg mooy ñu réglementer sous-traitance ci réew mii lu ko mooy conditions sociales yi dina gën a nësëx dañu ciy ànd ak Fatou Bintou Konté ak Hamadou Ba. ñuy wax société intérim bari na loolu ci Sénégal ba tax ni bari waaye boobu tax mu indi li nga xam ne moom moo di sous-traitance ñu koy seetlu lu baree bari ci li nga xam ne moom moo di suñu liggéey liggéeykaay yi lii. benn entreprise créé woo fële mu utiliser cent ou deux cent personnes yóbbu ko ci beneen société dem négocier ak kooku ne kooku na ko fay salaire yi bu ko fay salaire moom mooy fay employé yooyu mais loolu lu mu ci seen mooy sa euh, revient la main de devient moins chère. elle devient moins chère donc ça veut que y' a anguille roche. mu faf nag nekk ab benn drame social boo xam ne ñi fay liggéeyee ci jafe-jafe yu metti la ñuy dund ñoom ñi nga xam ne sous-traitance moo leen indi ci entreprise yooyu ndax li ci ëpp sa protection sociale sax duñ ko am mu di IPRES wala sax li di caisse de sécurité sociale. ça veut dire que yow boo arrêté ñàkk nga mais loolu c'est inadmissible c'est inadmissible quelqu'un qui contribue à la croissance de l'entreprise amatul benn possibilité pour que mu profiter des fruits de la croissance. ngir xeex nag li nga xam ne moom moo di phénomène boobu yi nga xam ne mi ngi bëgg a bëri fii ci Sénégal FGTS di fédération générale des travailleurs du Sénégal fas yéene saisir ki nga xam ne moom moo di ministère de l'emploi pour nag ñu respecter li nga xam ne texte yii mooy réglementer lu ñuy wax sous-traitance au Sénégal. na pare nañu créer benn plateforme boo xam ne ni ku am ay problème ay tolof tolof ci sa entreprise nga signalé ñu ko ñu wax ji ñun ñu saisir. administration du travail pour que mu def liggéeyam parce que administration du travail aussi moo responsable situation boobu nag ñu ngi interpellé sàmba si na xam ne lii mënul wéy et que responsabilité mooy mu arrêté li nga xam te ne abus yu nekk ci secteur bi. ba nga xam ne ñoom ñooy naataango Sidya Ndiaye yi ak seen njiit fas yéene ñu lancé benn campagne boo xam ne du yàgg dara dinañu débusquer ñi nga xam ne ñoom ñooy sous-traitants yi nga xam ne du ñu respecté réglementation bi. brèche bi nekk ca ndar euh, daanaka li mu rey bari na ñu diggoon nag askan wa na dinañ door liggéey ba liggéey ba jàppaleen na door na tey jii ndax ministre de la pêche euh, ma nga fa woon liggéey bi nag dina jar juróom-ñetti téeméeri milliards ci suñuy koppar dina yemb itam fi lekk juróomi weer ak genn wàll waxoon naa leen ko sànq li mu rey foofu ca ndar toll na ci ñeenti téeméer ak juróom fukki doomu aadama dañ ciy ànd ak Ousseynou Diop. liggéey yi ñu war a amal ci bël bi tàmbali war nañ ko Alioune Ndoye ministre de la pêche demoon ak ñi nga xamante ni ñooy nappkat yi nemmeeku liggéey yu ni mel fii nag daal dinañ xam ne nii koppar yi ñu ciy dugal ren ji lay dina toll ci juróom-ñett ci milliards ak lu teg. huit milliards et quelque la coût bi parce que bi yoon pour wàññi lépp li nga xam ne dafa aléatoire dragage toujours day am li ñuy wax benn tolérance xam nga boo affaire du linéaire yenn saa yi nga boo nee par exemple fii trois mètres et demi lañ bëgg mais yenn saa mu dem quatre mètres. kii liggéey liggéey bi ni actuellement ci appel d'offre bi nga xam ne dama ko dakkal bu dee ci wàllu njëg moo gënoon le waaye dele bi mu proposé woon moo ko éliminé ci appel d'offre bi ci kàddoom liggéey yi du sore ndaxte juróom ci ay weer ak lu teg la ñu àpp ngir mu mën a sotti lépp ngir mën a jàppale nappkat yi nekk ci diwaan bi daan am jafe-jafe ngir jéggi bël bi moo ñoom boo waxtaaneek ak ñoom dana danañ la wax ni fi ñuy jaar mm-hmm. dañ leen ko ko sécuriser teg ay checkpoint leen koy indiqué chaque fois. pour ñu bañ bi di mbëkkante ak ñii liggéey. Mhm. du dëgg pour mën ko éviter actuellement dem ak dikk bi c'est assuré. Mhm. te euh, ci juróom euh, juróom weer yi nga xam nañ ko war a liggéey juróom weer ak genn wàll dañ koy assuré loolu ci contrat bi la bokk. Mhm. di nga gis ni dañ leen ci impliqué sax ñoom en tant que acteur. ñuy bokk ci surveillance boobu ak information boobu. bël bi def ay loraange ñeenti téeméer ak juróom fukk ci doomu aadama ñoo ci faatu ci kàddu mool yi ñoom nag nee bu fekkee ni li lay daan nay sotti daañu gën a mën a nokki ñuy wax ni kon euh, brèche boobu nga xam ne ñu ngi koy defaraat ca ndar euh, dina jar euh, juróom-ñetti milliards si sunu koppar alundooy muy ministre de la pêche àdduna jëmale itam ci accident yu bare yi nga xamante ni bateau étranger yi ñoo koy faral di sookee foofa nee na déjà am na benn avion de surveillance boo xamante ni ma nga fa te itam ñi ngi defar juróomi bateau yoo xamante ne bu noppee dinañ gën a yokk surveillance beeg gi gi foofule dañuy daal di dem seeti leneen euh, ndax nag ñetti million gu masque euh, dina am dina ñu ngi koy waaja yóbbu ca Touba ndax nag ñi ngi waajal euh, màggalub Touba fan yi di ñëw rek naka noonu vaccin yi nga xamante ni fas yéene nañ ko ñàkke képp koo xamante ni bëgg ngaa wutali ca màggu dem ca màggalub Touba googule ndax nag ñu mën a fàggandiku contamination ba foofule ministre de la santé mi ngi woo képp koo xamante ni dangaa bëgg a dem ca Touba voilà nga daal di respecter li ñuy wax les les mesures d'hygiène ak les règles barrières les mm, les règles barrières wala les mesures euh, barrières dañ ciy déglu ki nga xamante ni moom mooy Lamine Baragay directeur du SNEPS e euh, kii taataan ay kàddoom moom mooy Pape Fara Ñing ak Jafara Ba waaw màggal gi moom ñi ngi ñaan euh, comme ni ñu ko defee woon daaw rek euh, suñu ministre ab Diouf Sarr jox nañu instruction déjà talaata moom moo jiite woon délégation bi ñu dem Touba visiter nañu déjà dispositif bi ak naka la ñu war a doxee ñun nag ci suñu service muy seen éducation ak information ñu yóbbu lépp li nga xam ne war nañ ko yóbbu ci ay masque ak ay produits d'hygiène yoo xam ne bu suñu mbokk taalib yi ñëwee ñu mën ko fekk sur place. parce que moom ba àgg 3 en tout cas problème masque moom du am Touba kii tamit du am direction de la prévention jël nañ disposition yëpp pour que képp ku ñëw Touba nga bëgg a ñàkku nga jëloon AstraZeneca première dose boo demee Touba da nga mën a jël sa deuxième dose soo soxlaa Johnson and Johnson tamit boo demee ci post de santé Touba yi danañu la mën a ñàkk loolu tamit ñu ngi ciy dalal xelu nit ñëpp. ak man nawet bi ñu ngi liggéey également ak service d'hygiène nga xam ne ñoom déjà bi ministre demee dem na visiter seen dispositif installé nañ seen machine yëpp ci fan yi di ñëw dañuy fekk weekend bi la ñuy commencer pompe Touba. pour que wàññi ndox mi mais également rey yooyu. jàpp leen ne hôpital bu bees boobu am ca Touba euh, di bokk na ci hôpital yi nga xamante ni moo gën a mag nekk fii ci Sénégal euh, daanaka ki ko wax mooy coordonnatrice projet des quatre euh, hôpitaux mi ngi hôpital boobu nag dina jar ñeent fukki milliards ak itam dinañ fa samp ñetti téeméeri lal naka noonu centre de dialyse bu mucc ayib ki ko wax mooy Assietou Kassé Dioum ci micro. du Fall ak Mohamed Dieng. Touba li fa li ñuy am Dakar yëpp am nañ ko. Touba fay li am Dakar yëpp am nañ ko Touba ba am un plus parce que ci biir ci biir service yi fa nekk am na service yu bees yu fa nekk yoo xam ne amul sax ci hôpitaux yu nekk Dakar équipement yi nag benn du ci équipement de de de. de basket équipement yëpp c'est des équipements de dernière génération des équipements qui sont venus d'Europe qualité la radiothérapie bi nga xamante ne ni defe bii mooy euh, normalement troisième bu am ci Sénégal à part euh, Dantec Dalal Jàmm bi mooy troisième hôpital bu ko fi am am na centre des grands brûlés nga xamante ne Sénégal yëpp amu fi mu ngi soog a am fii ci Touba service yu bari dialyse bi nga xamante ne ni Touba pratiquement moom loo fa am ci centre du doy am na benn centre bu ñëw dollee ci centre yi nga xamante ne ni ñoo fa nekkoon. waaw on peut dire que ni hôpitalu Touba bi moom pratiquement euh, bu ñu mënul wax ni moo gën a rëy ci hôpitalu Sénégal itam gisuma benn bu ko ci gën a kii parce que équipement bi ci nekk barewul hôpitaux yu ma yu ma nekk fii ci Sénégal. Mm-hmm. mën naa ni sax peut-être ci Afrique. le coût de l'hôpital c'est jeexale et équipement compris. ca Matam ndax nag taw yu bare yoo xamante ne wadd na fa daanaka yàq na yoon bi nga xam ne moo lëkkalee maatam ak Wuro Sogi lu wa bare bare la fa yàq moo tax nag ñu ngi woo képp kuy dawalkat mu def ndànk ndax nag ñetti pont moo am laata ngaa dugg ca dëkk ba transporteur ya nekk ca maatam ñi ngi woote wallu dañ ci ànd foofu ca maatam Ali Bandel ak El lii bu fekkente ni askan wi dëkk ci dëkkub Matam musuñu tay yi génn ngir wone reconnaissance maanaam delloo njukkal président Macky sal mi nga xam ni moo désenclavé seen dëkk ak ñett pont yu yanj ak yoon bu ñu goudronné ci juróom-ñaari kilomètre tey ji tembekat xalaat baa ngi bëgg soppeeku ndaxte nag bi ñu duggee ci nawet bi léegi ak ndoxu taw yu bëri yi nga xam ni wadd nañ fii commencé nañu indi ay yàqute ci yoon bile ba mu jur kon ab danger ndaxte nag kenn réerewul ni jamonoy nawet yoon mennum yoon bi nga xam ni fa nga mën a jaar ngir dugg wala nga génn dëkkub Matam ba ñu doxantoo rek ca gare routière u dëkk ba moom la ñuy waxtaane fu ne dañoo sonn ci tali bi te ab daa bari ay pax ay yàqu-yàqu ci suuf yi no tali bi yaakaar naa tali bu bees la mais moom mooy loolu yaa ma gën a xam rek waaw tali bi moom spécifiquement boo gën a point yi kër kër yi foofu noonu mooy kii bi nu mu tëddee dikkati waaw pont bi bari ndox yenn saa yi ak yooyu noonu da ngay dugg nit sax mu xëpp ko ndox wala leneen non loolu warul loolu koy dañ ko war a defar rek waaw gis nga ak garage bi ak ndox mi ak yëpp son oto yëpp yàqu nañ dara mënul baax loo defar mu yàqu. ah tali bi moom vraiment mu ngi commencé yàqu quoi waaw franchement moom mu ngi commencé yàqu quoi te wóorugul dara waaw gisaguñu dara de pour l'instant moom ah xanaa ñu ñaanal rek ñu defar waaw ah defar bi moo baaxut ah nañ si jàpp rek waaw defar ko. ci fàttali nag yoon bile nag te mu amee ñett pont yi lëkkale Matam ak Ourossogui moom la ki fi ne woon njiitu réew di président Abdoulaye Wade doon tëkku ni day arrêté travaux yi bu ko waa Matam wotalul bi mu jëlee pouvoir bi la Macky Sall kon daal di sumbuwaat yëf yi ba ci atub 2015 bu yàggul dara la liggéey bi jeex ñu jébal ko askan wi tey ji kon yàqute yi nga xamante ni moom la ñu nemmeeku sax dafa teel a fës tàggu leen fii ci xibaar yi buur na ci kanam tu tuuti dañuy dem publicité laata journal de 20 heures qui sera présenté par Soxna Nata Mbaye